asalaamaaleykum sama gars yi ñu am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax ci teew bi ñuy teewaay teew fii nga xamante ni moo di Rufisque ci ko ñu xees ko ga ah. tey mu teg fi benn boo xamante ni bon yaakaar ne Dakar bëggee nañ ko banlieue bi ñu koy bëggee bu baax baax a baax a baax di bi nga xamante ni mu ngi marqué empreinte am fii ci hip hop hip hop Galsen ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax tey moo ñu fi andi tey ñëw jàkkaarloo xees ko jàkkaarloo concert bi xool li nga xamante ni tey moom la tegal waa Tëngéej ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ak télé bi nga xamante ni moo di VA TV ngeen ànd si seen DJ DJ Lamine muy affaire bu garaaw a garaaw sama gars yi ñu jox rendez-vous léegi léegi léegi tey nañ leen wan lépp même artistes yi nga xam dañuy yëg ba wàcc nañ jàkkaarloog ñoom suñu plateau waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan lañ gisee concert bi ak lan lañ xalaat yi artiste bi nga xamante ni moo di xeetu sama gaay bi bien doo ci kanam ay ca mu ngi noonu. bande bi ba si nga hormata honoje boom sare sata ɗo hosaɓe ñam sippi sami sata tomo om kono ɓeɓe estanitɗe sah ko estasoyi mbaɓe mbide sah togledi ha koko teye bo managen waɗegi sohorni jokor sala waɗi alalu sa goɗi meɓe dara sake hoɗi kuuta million jiga somo diski buri ko men waɗi somoki sakki sama gulor nen sae on jiga sappo tala tako ñore o demugu jiglode sakki jo mamandiramo re kijita kacce gatdine fena Aïcha mu ngi sama gars yi ba tey ah ñoomaat benn interview ak euh, Funo Funo BV muy gaayen boo xamante ni borom saaga yi nee na ko mu saaga nga fajoo mais Funo naka mu. waaw déjà nice. mais yaa ngi cool la. Ah? waaw bu baaxee sant bu te ñu gis la nga ñëw ci concert Xees bi def benn show bu nice yaa ngi ànd ak Xees Cook benn duo ba pare nga ñëw def sa benn show bu nice link bi lan la yaa Xees Cook. waaw booy samay samay rakk lañ quoi. parce que man joxul laa dëkk yàlla def nañu tamit peut-être ñoom ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw quoi xam waaw am na foo xamante ne yóbbu nañ fa affaire yi booy tamit xam nga nekk si porte flambeau boobu donc bu ñu ayee foog ñu ñëw jëmmal ko suñu bés bi quoi ñu ñëw teew parce que du bésu xees kooku waa Jokkul waaw. mais tey ngeen nekk ay artistes si gox bi xis teg benn concert bu mel nii mais loo leen ci sentir ay rappeurs yu mag. waaw mbégte mbégte moo tax ñu ñëw ah. parce que boo seetloo amoon nañ leneen ak leneen barke Seydina Mouhamed lu ñu bàyyi. am na ku ñu ñuy fay xaalis pour tey ñu ñëw mais dañu bàyyi noonu na leen tey suñu rakk moo aye mais aussi tamit suñu dëkk moo aye jokkul jokkul bu aye ñëpp ñëpp dañuy bàyyi ñu def ñëw wuy sa jokkul parce que fii mooy baal base bi fii mooy til bi kontaan rek lañ ci am. ok mais tey seen rakk muy xes kuk mu bokk ci benn compétition jël fa première tey mu ñoo teg benn show bu mel nii loolu di xaar ci moom. yaa góol naa ko góol naa envoyé naa ko message du moins parce que tamit loolu fierté la.

sa waay dama mel ni xamul kan mooy Feno. mais nekk kan mooy Feno rek. waaw kontaan nañ ci yow Fodou. ok frère. ok reste mu ngi noonu Fodou nga doon am foofu ah. muy PV mooy bandi Sadik la. bientôt ci kanam sama gars yi mu ngi. yeah. maa ngi lay mën di leen waaye sóoraale leen ñu. President Trump, who's going to make that? Martin Dr. Woody sa yaram lu mu laaj sa yaram lu mu laaj. waaw incha allah si kanam rek dinañ xam mooy loolu waaw. yaa koy dund ah. waaw ñoo ngi koy dund bu baax. mais looy préparé instant looy préparé gars yi. waaw comme dab rek comme gars yi rek show yi mooy loolu noonu xam nga rek à chaque fois gars dañu defee show innovation rek mooy loolu. mais nga naka nga tey sa mbokku artiste yëpp ñëw fii tey loo yëg. waaw loolu tamit contentement la quoi nice bilaay ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg. loolu waaw show dina am mooy loolu show moom dina am ay tam mu ngi noonu def la waat def waaye dundu xonnee gi ngay dundu waru la tam na si biir doomu aadama yi di ñafe saay ci seen laay lu waat suba moom am sa dëru dërëm li bër la am dërëm ndax aduna bi que preparé Soy el fenómeno y a la familia le paré Ayer subí de candidatar De conmigo le dio un baile yo Wiley is my best and will that lady Walien sopito kalinda luang petu Dari liang dituru kontak pojok musikku Kep musik kep pedang fudi lenggila Barangin isan sunyu dundu Walien sopito kalin Lokai dengar

Uh-huh.

MC excellent. excellent. excellent. le vainqueur excellent. le excellent. bi le maximum de plus, s'il vous plaît pour merci. Roubaix Alors mon ami

É só Arkadaşlar nerede dinliyor bana? Necdet böyle sohbet orta. Burada.

tomorrow The past is one day that we tomorrow Doctor, I'm gonna follow like you

to my partner that will not mention this low fake is For those business, that's what we're stopping at your visa They got put in there, so they got to go so win my partner, that's so much things that doesn't not do See that? पहले से मर रहा हूँ तो काले लोग कुछ सिंगर हम पुकार लोग लाए तो बुजुर्ग लोग खेल सिंगर पैसे से बाहर बुजुर्ग को क्या कुछ नहीं

Allah'a emanet olun.

fucking do it instead. I am not my fucking do it. We were so fucking produced and I'm going working better with it. The music's not in my life, my fucking house, someone does it. You need a kind of, I don't know, you know. never see black. Cause you do, but what it is, ended sama gars ba tay ñu ngi ziaru baaxa baax ñu ci biir concertu u kok bi ha ah. tay lañu taxaw ñi nga xamanteni ñoy wal organisation bi moy gars nga xamanteni muy gi nga jigen ni ak gor ñi certainement ñeneen ñi ñu ci biir remouvement bi on nañ leen ba sonu mais mënuñ leen jot wal organisation ñu géré ko normal ñu tek ko ci yoon nak mais day leen di laaj ñom naka lañ organiser affaire bi so no tuddu Anta waxal lu baax no tuddu Anta Anta noo leen dé programme bi tey foo leen jaar programme bi ngeen gañe ko tay Thiès moom yaa ma gën a xam suñu waay la suñu lépp la programme moom lépp moom kii tapper la kii <laughs> waaw mais ki may Fanta ba tey ñoom ci gars yi lañ bokk ñoom ñoo yor wàllu organisation xees coupe bi heure buy def événement ñoo ci nekk di sonn sincèrement Fanta na moom. waaw mais Lamine cool. si yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm kay. nam naa la maa raw. mais fan ngeen jaar ba gagné confiance waa Jokkul benn ñaareel ak concert mel nii ni ngeen def ba

moom mooy ñëw taxaw defa ko ba mu nice donc xam nga ne initiative bii nii ay xale yu ndaw ñun di ko def mag ñi dañu war a jug jàpp si quoi dooleel ñu may ñu force parce que li lépp si wàllu aar bi la mais moom mi ngi nii chaque année ñu defal ko gars yi ñëpp teewee ñu ñoom tamit bu ñu ayee dañuy dem teewee leen noonu rek la demee mais à part moom lépp nice gars yëpp si jàpp ok muy affaire bi nga xamante ni sincèrement difficileul quoi non c'est difficile sax laay wax parce que teg concert rek dafa yombul tey ngeen góorgóorlu ba teg lii frère tur la ça va Babacar. Babacar ngeen bokk ci organisation bi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner Xess Cook naka ngeen de ba teg concert bu toll ni fii biir Jokkul. ah daanaka affaire bi moom bu ñu doon commencé moom métti woon na moom parce que moom dajale ay nit rek nekkul lu yomb parce que mais mais Xess Cook na ba matal loolu noonu yëpp lépp daal matal na la c'est normal. après da daan dem daan dem sax ba booy dañu daan dañu daan ñu naan la booy bi am na lu muy def chaque instant à chaque instant ba moom day mujjee volontaire wu moom boppam dem dem wuti ko ñëw ñëwaat toog te kenn du ko xamal. mais naka ngeen di dundee ak autorité Tëngéej yi ndax jàpp nañ ci combat wala déet. waaw waaw autorité yi ah, ki ma si gën a mën daal ah, ki ma si gën a ciblé mooy maar Aline Fall Mar jàpp na si waaw bu baax sax waaw Mar Aline Fall Mar waaw jàpp na si bu baax parce que dafa amoon dese. dernier moom ba dernier moment nu yaakaar ne dara dootul baax mais moom bi mu ñëwee rek si la def dara. après après affaire si la yemba ni ba ñu mën ko def tay programme bi mëna jaar ci yoon. Aïcha mu ngi noonu ha ah, autorité tengue ji di leen jappalé sen ay dom parce que ñi ni sincèrement ay boy yu sonu lañ ci ay xees ay ñom Fanta ah, ñi ñep ay jambar fàq tëdd lañ gars yi nii dañuy sonu ci sen MC bi ngeen jappalé ko bu baaxa baaxa baaxa baax trophée bi ngeen jël tay non ko dundee trophée bi. Five to Busy Award bon. bettuñu parce que xam na ne ñu liggéey nañ lu tax ñu war ko mën jël xees moom amoon naa confiance moom ñu ñëpp amoon nañ confiance si moom mais tamit gars yi dañ si jàpp di woote di vote kuñ ko waxee rek mu tëb jël téléphone am woote jour boobu trois heures du matin mais bon yàlla dogal ñu bu jëkkee jël yow woote bon ñu ñëpp ñooy woote yow woote nga si élection bi élection bi waaw waaw bu baax sax waaw waaw yow woote nga si trophée bi woote kay. woote moom. ba seen ba ñëw jël ko tay ngeen ngeen def nan. ah kontaan moom trop kontaan moom. loo leen koy ñaanal. dañ koy ñaanal moom gudd fan dañ ñaanal moom bëri affaire bi même foo xam ne daal mooy loolu. waaw. waaye ca mu ngi noonu ñu koy ñaanal gudd fan. te xam nañu moom gër gërëyee la di moins xam ga muy xees kook say xarit ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax ñu teg suñu baaraam foofu ñu ñëwaat léegi léegi Dave.

Je m'appelle, Est-ce que tu tombez te vous un des données rappeurs je tu que si quelqu'un vous dit Tante je ne sait pas peur Maladeur 17 et plus police c'est ça peur Les dégâts qui vont se mettre Buteur de ce de je un je te les bois que vont moi je me choix Mais est-ce que mon nom est Google Non Para mo ñëw je pas lu ko Je bleu damay uti un thé bokku na bu ne tur la sa gaara je je Things in my mind every day I break Don't put the love up without a break Go back on your side This moment break like a tiny man what's up I'm not doing really better please I'm a top Standing last I got in my top can you remember got a body pass wow People tell me go for the go not ever go the game I'm they get me no peace but they got the game So rolling what they can do the gun I'm there come on Yo, my city, now that's static, static, static, static, static. Sadiq teranga way teranga baykat yi Sadiq Sadiq Sadiq bu ko Sadiq Sadiq léegi di bis pare wàññi. Seki seki léegi maaw menge menge yaa fi. waaw kay léegi sama yaa ni ngaan doxal ba teel laa laa. ah léegi bool doxal ba teel laa laa. ma ne eh. waaw sax bi de jamono tàng ba tàng laa dégg. ay sama ngi noonu sama gars yi ñu ngi bëgg a a leen ziar yaakaar naa ne kontaan ngeen ah. tey toppal nañ leen événement bi nga xamante ni moom la teg fii ci muy concert bu mag a mag a mag a mag ginnaaw bi mu jëlee compétition bi nga xamante moom la doon jublu fan yi passé jël ci première tey tegal leen benn concert boo xamante ci diggu xolu dëkk ma waaw muy fii ci Rufisque ah, yaakaar naa ni kontaan ngeen bu baax a baax a baax loolu la leen andiloon tey fii ci VA TV ak DJ Lamine di gërëm ñi nga xamante ñoom laa àndal ci combat bi muy deev ci caméra bi ah di ziar càndum bu baax a baax a baax Adama di la bëggee baax a baax ak Ousmane di bëggee sama gars yi di bëggee équipe bu VA TV bi rawatina équipe bu jotaayu aar bi DJ Louf ñu ngi lay bëggee baax a baax nam nañ la moom frère sama gars yi di leen jox rendez-vous ah